waaw <clears throat> asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ger di leen màggal di leen ndamoo leen tiitaroo di leen bëggee ci fajar bi xam naa nag live bi dina leen bett parce que live bu heure bi moom mosuma ko def man maa ngi ci minuit Sénégal ñi ngi ci cinq heures du matin Europe ñi ngi ci six heures ñeneen ñi ñi ngi ci midi ci ngoon ay Corée du Sud et cetera waaye boo leen ma gisee heure bi ma génn rek war ngeen jaaxle yéen ñëpp war ngeen ne ah moolaa moom heure bi moom lu mu war a wax waaye dinañ ko wax bàyyi ko fi ma ci interpeller Ndella Madior Diouf comme ñun nag dañoo nekk ci investigation loolu lañ taxawee ci sénégalais yi saa yu ñu amee ay jiixi jaaxa wala ay lëndëm lëndëm wala ay lënt lënt ci ab mbir sénégalais yëpp di xaar moo laa génn wax ci loolu nag yàlla mooma boole ak ñoom ma séq ak ñoom langage de vérité séq ak ñoom dëgg moo tax saa ay coow amee ñoom ñëpp interpellé ma ne ma moolaa soxla nañ ci sa xalaat ndax wóolu ma wóolu ak it tàmmuma di leen wax li leen neex walla di kàccaki wala di inventé ndax tal naa leneen ku wet ak sa bàmmeel rawatina nag ngay joxañ baaraam ay doomu aadama yuy dund di leen accuser ay accusation yu doy loolu yoon la nga teg ko fu wér te wóor avec le temps lépp day leer ci mbiru nag Ndella majoor juuf sànq jël naa ci ab doomu aadama bu fa liggéey te man nit bu compliqué la nit boo xam ne laa yoruma bopp xar yoruma bopp bëy yoruma xelum baam xuux nit di ñëw rekk ratatati dem sa yoon wax lu la neex ma jël say information yóbbu dem jox sénégalais yi déedéet kooku du moolaa moolaa nit ku compliqué la nit koo xam ne balaa nga ko convaincre danga koy won ay preuve maanaam je vis de l'écosystème je vis au jour le jour manam man luma lumegis, gëm moy luma gis li jaxran di jang situation ab mbir diko ko gëstu ba xam ci luma leer doog wax bu ma leerul dama koy sanni ndax jaraluma ko ndax sincèrement di def ay live di katch dunduluma fayul sama bills fayul sama lek yorul sama dundu donc yakarna ni live yi bu ma dafaruma tous ngo buma bu ci waré wax dama ci wax deug té ni di deg. dama interpeller nak ki di ndéla major djouf directement di wo sénégalais yépp di wo la police sénégalaise di wo les forces de défense et de sécurité di len interpeller di len wax ni jot na ci lu doy war lu ndéla major djouf def dafa am ab soxna bu am xaalis nak bu dëkk Liberté 6 ma ngeeg tour bi ma sante bi ma këram logement këram Liberté 6 dafa ëmboon dem hôpital waroon accoucher def césarienne doom ba dellu bi doom bi delloo bu mu toogee hôpital ba pare bu muy génn hôpital mu ne moom mënul woon dellu ci koñ ba nga xam ni foofu la ëmbee ba biir bi ñëpp gis ko ràññee ko mënul woon demee loxo neen te yóbbul ab liir nee na xelam jox ko mu ne xaaral ma dem gisi ndeelam majoor pour bu ma mënee jàppale jox ma ab xale ma mun ko yóbbu au moins mun a dem ca koñ ba ñu mun a xam ni ah kii mooy sama doom ma adapté ko nee na bu mu demee fekk na fa ay nunu fekk na fa ñeneen Si vous ñëwé ndélam major ci bopam moko proposer lire 2 millions de francs CFA néna a 2 millions de francs CFA mais 1 million la compte. ci comptam mu né ñakul mom amna xaliss mais jour bobu après bu fayé frais hospitalier 1 million et quelques francs moko déssawone ci nee na mu jóg dellu fekk Ndella Madior da ko proposé ab bébé jigéen te doomam bu jigéen moo dellu donc mu dellu lijjanti beneen un million génne un million beneen bi mu mat deux million nee na mu ñëw ay seedeñ fa woon mu jox Ndella Madior Diouf deux million de francs CFA Ndella Madior Diouf jox ko bébé boobu mooy xale bu jigéen boobu mu yóbbu ko loolu bébé boobu ba léegi mi ngi këram li tax nag ma jot ci mooy nit bu comme nu may defee samay investigation ba am ay nit yoo xam ne dama liggéey ak ñoom ku nekk di dafa dañoo liggéey ak Ndella Madior ñu may raconté ay mbir am ku ma dem ba raconté ma mère boobu ma ne ko kooku daam boobu moom nu may def ba jot ci ma dina metti mais defal ndànk parce que man daam bi bu muy ñëw sax ba ñuy wax deux millions yeeg lépp sama kanam la seede laa ci am na ñeneen yeneen nunu nag man seede laa ci léegi xam nu ñuy def ma ne waaw mu ne ma munu ma ko jox la jox numéro am léegi da may déglu ci whatsapp bii ma jël sama beneen téléphone bi woo ko direct pour laaj ko bébé bi ndax mi ngi ci jàmm mbir ma ne ko waa d'accord mu jël téléphone am ci boppam maa ngi déglu mu woo soxna si daam bi c'est une fii daam nuyonteeg moom saafanteeg moom laaj ko bébé bi ne ko ana xale boobu noonu mu jëloon ci ñoom ci pépinière bu Ndella majoor maire bi ne ko waa mi ngi fi mi ngi ci jàmm lu ma lay wax nii guddi la sànq ne ko mi ngi nalaw sax mu ne ko ah mbaa mi ngi ci jàmm ñu nuyonte mu ne ko waaw xale bi mi ngi ci jàmm après ci la ko ne waaw yaa ngi dégg coowu pépinière bu ndeela majoor bi mu ne man kay dégg maire bi di wax de maa ngi dégg mu ne man kay dégg naa ko loolu kay doy na waar ñoom kay seen foofu dafa jaxasoo maire bi wax de ñoom kay seen foofu dafa jaxasoo ndax amuñu organisation te ndeela lu mu yanu dafa diis munu ko attanu ko te amu ci taxawaay boobu maire bi mooy wax de maa ngi dégg ñu waxtaan ci situation bi am ci pépinière bi ndeela yor ba mu ñuy waxtaan ñooñu bañ ca pare ñoom waxtaan maa ngi dégg bañ nuyante ba kii mu ne ko dama doon xool xale bi rek mu ne ko waaw mi ngi ci jàmm ay nangam ak nangam expliqué sa waa ji jëm ko introduire naan ko sonnoon nga de mu ne ko maire bi ti wax may dégg naan ko waaw billaay waaye doom doom gàcce dafa bon xam nga ëmb neuf mois waa koñ ba yëpp gis la ngay jaabante di dem di ñëw nga ñëw bëgg a xëy ñëw ne leen liir ba dellu na man xaw ma woon nan maire bay wax de ngi dëkk Liberté 6 maa ngi turam nag ak santam ak numéro téléphone ak numéro appartement bi këram mu ne ko gàcce dafa diis ëmb ci koñ def fa neuf mois yóbbu la hôpital nga dem ñëw bugg leen indee ne leen liir ba dellu na moom nee na mu doon gàcce googu mënu ko woon attan mu koy wax waa ji de ne ko loolu moo tax ma ñëw te boobu dafa ñëwoon pour wut ci ku ko ndeel a jox mu yóbbaale jàppul woon ni sax da koy jënd donc ci la ko ndeel proposé benn liir à deux millions de francs CFA donc mu koy expliqué sa waa ji ma boole moom nga xam ne moom mooy wax ak moom téléphone man may dégg sa waa ji di ko wax ah ma gis nga de àdduna noonu la mel nangam na ñu wax ci pour ma am lu ma leer naññ waxtaan boobu nag dama ko enregistré voilà dama ko enregistré mu jël sam beneen téléphone teg ko à côté di ko enregistré dégg maire bi di wax ak ki nga xam ni moo ma booleeg euh, moo ma wax histoire boobu ma dégg maire bi di wax dama ko enregistré maire bi di waxtaan ak waa jooju pour muy leer ci nopp sénégalais lii nag dafa doy waar dafa garaaw accusation yéeme la yu doy war la ma ci interpeller la police sénégalaise boudé bëgg nañ ci li leen wóor té lèr ñu jël cas bi au sérieux ñu top filiale bi ba gis lire bi Ndella Madior Ndiaye ab daam bu dëkk Liberté 6 ëmb ëmb ba dellu ndéla ma ñëw di wut ci lire ndéla major jaay ko ab lire à 2 millions de francs CFA donc ma ngi interpellé euh, Ndella Major di interpeller aussi le gouvernement sénégalais di interpeller encore une fois la police sénégalaise les forces de défense et de sécurité nous intervenir nous mu gën et rapidement surtout sur ce sujet moi ndaw soso nga xamni euh liram dafa delu mu dem ci ndela major pour wut lire bu mu yor ndela major jaay ko lire à 2 millions de francs CFA donc foofu rek la ñuy yem ci wax bi en attendant ne leen yor naa turu dambi, bi yor naa sant bi mi ngi dëkk Liberté 6 yor numéro téléphone ak ñi seede bu muy ñëw di jënd liir bi à deux millions de francs CFA ci Ndella major indi 1 million Ndella na ko deux millions la koy joxee liir bi mu dem ñëw indi beneen 1 million muy deux millions mu jox ko Ndella major Ndella Madior jox ko Lire boobu ba suñ jonne yalla tay mi ngi ci loxoy daam bobu noonu nga xamni bëgguma tudd tour mais ma ngi interpellé ndela major té li may def ni live bi bëgg naa ngeen tage ci touram mako accuser accusé direct directement et j'interpelle la police j'appelle les forces de défense et de sécurité à intervenir et à réagir le plus rapidement possible parce que c'est une histoire catastrophique rocambolesque bo xamni ñom war nañu taxaw lijjanti une bonne fois Je tagal ma le nom de officiel mu répondre à mes accusations voilà Donc, wax j'ai les preuves en audio j'ai le numéro de téléphone de la dame qui habite à Liberté 6 à Liberté 6 j'ai euh, la son adresse et j'ai l'audio de la dame bu mi wax ak sama informateur bi nga xamni c'est de la témoin ci histoire boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi leen di bëggee ñëpp peace and love